danaa ko ràbbal kon li cheikh yi ñeel sëriñ bi man sëriñ bi nga xam ne yuddeexu dana tofal al ihsaana rafetal ga ihsaanan ak rafetal mu ne ak a neexoon ma mën a wax lool ni ki kaabu mbaa ma mën a way lool ba mel ne xasaan kon day danaa wayal sëriñ bi ay xasida yoo xam ne duñ am moroom ndax sëriñ bi xam naa ne loo ko defal lum néew néew mu fay la loo xam ne da ngay luum wa xaayatul xawli day tal wax daal hindi fa man an àqoo la mooy ma wax la wëññal ko ne ko yaa cheikh yow sëriñ bi ahmadu te yaay ahmadu fuqata kawe nga aljila mas ga ci biyaanan ci ak biral fala nazira déet ndend wala xirnum te déet ak maas yubaa risukum di léewtonteeg yéen ba li fi nekk ante yow fardun kenn nga mawlaana te yaay sunu sang bi idnillaahi ci nameelu yàlla li ma mën a wax ci moom daal mooy ne ko yow Cheikh Ahmadou daal féete nga kaw mboolem maas gi amoo ci moroom amul kenn koo xam ne dana taxaw tey di jéem a maasoonte yow di jéem a léewtoo yow kenn nga koo xam ne yàllaal def nga kenn rek ku amul moroom yaa yuusufal xusni yow yuusuf ab taar ba muxtaaral kamaali tey muxtaarum mat ga wa luqmaanul xoloomi tey luqmaanub xam-xam ya wa xiisa kulli mawtaana tey xiisa mboolem sunu way faatu jasaaka yal na la dollee fay xanaa walisnu di qadri di qadri daati ci kem jëmm ja xaaliqunaa sunu aji bind jasaa aman payub koo xam ne tabba faj na axyaanan ci ay jamono wa axyaanan ak i jamono bi xormatil Moustapha ci oromay ka ñu tànn almuxtaar yi ka ñu tànn afdali man mi ngën ji képp koo xam ne saada sang na alxaba ila giir ya xaxtaanante mooy xaxtaan wa àddinaana ak àddinaan ku nekk yow mi nga xam ne yàllaal def nga mel ne yuusuf cib taar may la mat ga mayoon yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam may la xikam ya mayoon luqmaan may la ngay dekkalaat ñi faatu woon nam ko maye woon yonante yàlla xiisa yow sëriñ mel noonu damay ñaan yàlla mën a fay moom rek moonu la mën a fayal kon yàlla na la fay may gude yi ne màggaayu jëmmam ci dara ji yonante bi nga xam ne moo gën ñëpp ñëpp giiram yu tànneefu ya ni ki xaxtaan addanaan ak ñëpp rek yàllaa ko ca gënal mu gën ñëpp ñëpp sàllaa yàlla na dool tedd nga alayhi ci moom maxal aali ànd ak ñooñ ña alkiraay bi ñu dawee tedd maxan boole seen mi ñëw mi naa tàmbalee sum bis bi daa bile ilaa jannaati addanaana ba ci jànnay addan ba ci àjjanay addanaan ay jannaatu addanin moo ko tax di wax yonente yi mu tudd rek la julli ci moom ne yal na ko yàlla dooli teraanga mook ay mbokkam ak i saxaabaam di dale tey jii ba ba ñu dem àjjana incha allah walahu aydan yaaraa iman yow aji sàkku nay la saxaadati am texe wal xulaa kawe ya almim wàccal bi ustaazil azatidi ci sëriñub sëriñ sa ahmadate mooy ahmad cheyxil machaayix yi mooy sëriñub sëriñ sa xutbihim te mooy seen xutbu wa xumaamihim tey seen sang wa imaamihim tey seen ilimaan fi kulli nahjin ci wépp yoon uxmida wow fekkeef na ko muy lu ñu sant ahmada buñ ko teggeeru baax yi noonu mën nañ caa teg dara def ko faaxilam ki buñ ne ahmada ashayu di caa jublu saara mahmudan buñ ne nag ahmada ashaya def loolee ma foolum bi delloo faaxil ba ca ak jëf ja mooy maxnaam wajadahu xamidan fekk na ko muy lu ñu sant wa mu mit dihim tey aji tëbb seen bi sanaa ihi ci yëkkatikoom nga wa diyaa ihi ak leeram nga wa xoloomihi ak xam-xamam ya wa fuhoomihi ak ay déggam yu yéemu ya wa sanal xudaa ak leeruk jub yow mi bëgg am texe jëm ca kaw fa aw texeel ba dem ci sëriñ bi muy Cheikh Ahmadou Bamba mooy sëriñu sëriñ sa mooy seen kilifa di seen royteef ci fànn gu ne moo leen tëbb moo leen di yokkal leer ak jëm ca kaw moo leen di yokk ci xam-xamam yéene yi moo leen di yokk ak njub cheikhun ab sëriñ la loxo bam ñeel na ko fawqal mashayix yi ci kaw sëriñ sa rutbatun daraja taqaaxa sa bopp deltu na gannaaw an xaa walis ko fikru man xalaatu ña nga xam ne balaxoo jot nañu almada lef ma mbaa dayo ba ab sëriñ la boo xam ne yàllaa ko yëkkati ba darajaam tiim mboolem sëriñ sa xam ne fa ko yàlla teg moom xel xalaatul àgg fa ñu àgg ca dayo itam xam nañ ne foofa coobare yàlla waaye du luñ xalaat ne mënees na faa àgg innal fadaila naka ngëneel ya wal masaya ak mberma ya wal xulaa ak kawe ya saarat mujj nañu milkan di ak moomeel mufradan guddi guñ beral wala guddi guñ wéetal li haada cheikh yi ñeel bi li sëriñ ne xeeti ngëneel yi yàlla yi maye ak nderma yi muy beral ña ko soob ak xeeti kawe yi daa far moomale ko sëriñ bi mu dig moomeelam kenn bokkatu ko moom maa fil mashaariq yi déet muy nekk ci penku ya wal maxaaribi ak sowwu ya kulliha mboole seen kamala dina ku mel ne sunu wérukaay bii kaa foofu daal wax naa mislu mislu mala dina ma war a nekk moom tam ñu yeexe xilman ci xam-xam wa taqwa ak ci ragal yàlla maa na dan ànd ak tab ne penkook soow loo wër doo fi gis ku mel ne sunu sëriñ bi ku mel ne moom ci xam-xam mbaa ragal yàlla mbaa tabe amu ci yaa saalikan yow aji soobu turqal huda yooni jub li ilaahi naa jëm ci sunu buur bi haasa kii ak dalilu mooy tegtal ba fa wayka maa ngi la yéem yow wala yéem naa la yow wayka dañuy wax ne kalimatu tahajjubin murakkabatun min way wa kaafil xitaab benn baat la bu ñu yéeme rek dajale ci nag way ak kaaf gi nga xam ne mooy arafu xitaab wi laa tahlik bul alku sudan cig neen in kunta ndem nekk nga daal mustaaxan di aji sopp li wirdin jëm ci wird mooridin muy aj rotale ca péyub yàlla ba ku jàppal hindoo fa moom wirdan wird yun yi lu ko war na la jox mawridan ab rootukaay yow bëgg a soobu yoonu yàlla jëm ci yàlla sëriñ bi mooy xamle yoon woowu kon nag bul jekki di wëreelu di sonal sa bopp ba dee ci aw marak alkande te sëriñ bi nekk fii demal rek mu daal lay teg ci yoon wa soo bëggee fab wird woo xam ne da lay àggale ca péeyub yàlla ba sa xol sedd daal di jël wirdu sëriñ bi yar wi ci dana ko nettali an xayril bariyati jële ci ngën ji mbindeef yi ahmadin te mooy ahmad fa alayhi yàlla na doolee nekk ci moom taslimal muhaymini teral ak jàmmi yàlla mi aji seere lépp sarmadan faaw bahril mafaaxiri kay géejug ndam ya idi ngir loxoo ñeel na ko mubtadaa ab tàmbalikaay xindan tihaa kullil mafaaxiri fa yemuk mboolem ndam ya wal fadaili ak ngëneel ya biir du sëñ bi lay wax naa da koo jëlee ci yonante bi ci jàkkaarloo ci njéeméer nerewul deful dara moo tax ñu koy tuddee almaqudu minallahi bi waasitati rasulillahi dafa mel ne baxaril mafaaxiri wéy da koo delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu tudd léegi mu ne moom day ñu baax ñi lu ñu yéeg-yéeg buñ àggee fa nga xam ne mooy seen yemukaay mënuñu koo weesu fala yonent bi tàmbalee moom ci ay ngëneel ak i mbaax-mbaax ak i ndam jëm kaw nga xam ne moom fa nga xam ne fala ay ndamam ak i ngëneelam tàmbalee ñu baax ñi ñoom bu ñu yéeg yéeg foofa la ñuy yem وله أيضا ميت أبنيولة قد وضح بب ترليف نكو على نعشي جكو جاتم جا يا شيخ يسرين بي يهوى دنا صب الحياة دندو بما تلنغ خمني تحيا دنا دندي به كموم alburaha way raw ña mu nekk dama mel ni ab néew bu ñu teg ci jaat mu bëgg koo dekkal ci li nga xam ne moom lañ defare gaaye ba ñu raw mel na ñu defoon dekkiwaat dem ba raw ab néew laa boo xam noonu laa bëgg nga def ma ni istaw jaba yayoona albon de sori ga wallaw ma ak yedd ga alkatira ga aji bari bima ci la nga xamne jana togn nako yet yada yaari loxom ya wala ma mata ba nga xamne ne fatuna wan tuqiya te soppef aw melom wan tuqiya teug ci mafol mo ci gëna bari teug jëme ci mafol wala lay jitté ajut min karimin jenn aji tedd yastajiru kok dina laqu bi ci mom wala shafiin du ca genn jenn aji tunu joo xam ne mata ma jaaho saa yu ko dikkalee shafaha mutinu ko silaaka ndara yow rek boobee nag jaaka dikkal na la ci saan la jaaka la woon waxad xasunat te rafet na buneew nuxoo ay njortam fii ka ci yow cheikhu yow sëriñ bi yaa cheikhu mooy cosaan foofu moom lam yow zan tiitut mbaa buurut kamal ni ki nga xam ne fasiha tiit na mbaa buur na mu ne ko man dama yëg ne dinaa wett ba noppi te awma kenn koo xam ne ku baax la ku ma mën a làqu mbaa kenn ku ma mën a tin ku may yow moo tax nag ma ñëw ci yow ànd ak rafet jort ci ne sama lépp mat na ba noppi ñu ne buuree jëm si ci yow wéeroo ko ci yow kenn melu na ay yidhu nang ko dëgëral fil xiini ci saasay saasa bi nasri ca ndimmal la al xasiisi la aji tedd wakunta nga nekk al muayina di aji dimbali la ñeel ko xalaamaa ci la nga xam ne raama sàkk woon na ko famtana xatte mu të war faxu te nga yëkkati ko xataa yajur la ba muy diri ak day la mbicc ma moo taliyan mbir mi muy aji kawe al kawaaki bi ci kaw bidiya nafaan mbir mi ak jariñaa kon wa mun tafihan tey aji jariñu ne ko maa ngi nii dal may dimbali fi saasay saasa dimbal lu féete kaw dimbal yépp ba la ma doon sàkku te mu të ma daal di koy am yëkkati maa yëkkati ba nga xam ne damay daagu ci kaw biddiw ya sama yére di buubu ci seen kaw ñoom biddiw yi ma doole jariñu tey jariñ ñeneen su'lul xibaadi aajoy jaam ñi qalilun aji néew la fi xataaikumoo ci seenu may yaa saadatan yéen ay sang nuuruhum ñooy seenuk leer xad xad sataxa jolli na fil kaw ni ci biir mbindeef yi dana ko jaam ñi lañ aajowoo lu tuutee tuuti la ci ku koy takk ci li ngay maye moom li jaam ñi aajowoo du ca doon dara dara yeen ay sang ngeen yoo xam ne seen leer dafa daj àdduna sépp antum yéen kiraamun way tedd ngeen wa may yul mim ku wàcc bi saa xatikum ci seen ëtt yalqa mu taseeg an na daa tab ga misla wa dalil xaysi kem waa meew taw ba mun xamiixan mbir mi muy aji yol gaa yu baax ngeen yoo xam ne ku ñëw wàcc seen ëtt rek daldi am may gu bare bare gu melne waame wi taw melne waame wi taw ci kawam dal may gu melne lay fekk fi yeen antum yeen muradu ilahi yene na meluk sama borom min khalaiqihi ci minde fami ma dara lorut albari aji bind ji wa ma nafaha te jeriñut lawla kum bul ko nak yeen
sëriñ bi yow rek la yàlla teg bët ci mboolem mbindeef yi mooy soppandiku waaye lu muy soppandikoo ci jariñe mbaa lore yow rek la cay seet fala tazaluuna du ngeen dañ yustasxaadee fi sàkkoo nanduloo alxamaamu niir wa bikum ci seen daraja mu likkutumoo moomaleef na leen kun kun bi fadlillah ci nga lu yàlla man yàlla mi nga xam ne baduha ñàkk na moroom baduha mooy kaana bidaxan la matila la yow de yow la fi yàlla def ku bëgg taw asamaan ci sa daraja la koy sàkkoo daal di koy am yàlla la jox rek kun loo bëgg rek yàlla daal di koy def mu am fa saasa ay saasa
arbaakumaa waama neen doona gërëm loo allahu yàlla fi daare ni ci yaari kër yi doona xanaa jëblu coono yaam naa na nga xam ne allahu yàlla xadrafax yëkkatee na bi ci moom samka diini teegum diine wala tabaxub diine yàlla na nga xam ne ci yow yëkkatee diineem ji dama dem ci kaw kaw yàlla naa gërëm te doon naa ngërëm ba sa xol gën a sedd àdduna ak alaxira te bañ ànd ak benn coono arbaaka yàlla gërëm loo rabbi sama borom fi awaadi ci biir doom ya te mataman topp ka nga xam ne yun maa def na ko askan lakk jëm si ci yow ak dëxëri ci jamono ji mangi doon min ahlin ci ñoom wa man ak ka nga xam ne tabixa topp na bi xurmatin xaatimil irsaali ci ormay aji mott li yónneel ga aw waralante aji jëkki képp koo xam ne xat aw jëra am na ko allah yàlla min maa ci la nga xam ne kaana nekkoon na xadd badaxa di ko fent muhammadin te mooy muhammad xayri muxtaarin moo ngeen jikko ñu tànn wa sayidinam te sangut ko nga xam ne saada sang na al afadila way gëm ña koola mbir ma mu mbaa seen shaafihi shufaha kay aji tënu mooy timaana alayhi yàlla daa nekk ci moom azka salaama ya malikin gën jaa seere musawat terali aji moom faradin kuy kenn axyaa kok dundoona wa axnaa te mu doole waaw wa aqna te mu maye ba koo koy denc su ma lam yaraxa topp tiitalut wal aal ak ñooñu wa saxabi ak saxaaba ya mastaxna ni feeg waama la al madinu ka diisa ki bor bihim ci seen daraja bi fadli ci ngëneelam al jàmmi li aji bari mu doole waama xamin walis ka nga xam ne dara lor na aw nafaxa wala mu jëriñ sëriñ bi yal na la yàlla doona gërëm bàyyi ci biir sa njaboot gi muy doom yi muy ña la topp ak ñëpp rek ci ormay yonent bi nga xam ne moom la yàlla mujj yónni te moom la njëkk a sàkk ci lépp li mu sàkk kooku nag mooy muhammad gën mboolem ñëpp te bu ëllëgee mooy tiimu ñëpp yàlla mi nga xam ne mooy rey mooy dundal mooy maye mooy xañe moo mën a may nit ba muy denc sax te bañ caa boole tiitaange yàlla moomu yàlla ba yonante bi gën jaa selli teraanga ak jàmm moog ay mbokkam ak i saxaabaam
li feek nga xam ne ka diis ak ki bor ma ngay jot li ko darajay saxaaba yaag waa kër yonent bi daldi am lu ko doo doy ba du geesooti kenn ndax rek darajay ñamu jot li ko ak baaxug ka leen tax a baax gannaaw yàlla mu yonent bi li fay loolu ngi am yàlla saxal salaatu ak salaamu ci yonent bi ak mbokkam yooyu ak saxaabaam yooyu
walahu adam ya aji al aarifu ya aji xam ji yàlla al aali ya aji yëkkatiku makaanatuhu darajaam wa qad tubna tabaraana bu dee fi tabax madinatuhu ab dëkkam fil faradiisi ca jannaatul firdaws wa jawaabu ya tabbi al karim bi aji tabbi albaxar kay géej naa imaha moom ga waa xayisan na aji tedd xasat koog tedd na bihi ci moom janaaxatuhoo mbooloom ma waa waliyan yaa waliyu aliyan way aji kawe laa naawara waa déet ndoona naxa di ko ñeel fi charxi ci penku wal xarbi ak soow xad shaaxat siyana wilaayatuhoo walaayam ga yaa cheikh yaa sëriñ bi ahmadu te ahmadu la wax yaa waasil yaa sama xettal yaa salaadi yaa sama warukaay yaa faa'iqan yow aji kawe koo man képp koo xam ne daaxat si yoona futuñ wetu xoo ak doona waa di baax chakwaa muridin déggal njàmbatal ab taalibe baidin bi aji sori xarrabaxoo bopp jëngal na ko mën ko ci yoon xusnu sa jaayaaka rafetuk suñu jikko yaa ne maa nga xam ne faaba bëgg na wala baawaan na min na ko xoo xeewalam yonte yaa njëkk yëpp ak woote la ne ko waa ci am ak cër ci yàlla amee daraja ju kawe kawe yàlla dina tabaxal ab dëkk foofee ca firdawsi na gën a kawe yaa ko tamit nga xam ne sàmm yi daa mel ni géej yaa ko tedd ki nga xam ne sa tedd nga sar na ci sa mbooloo yaa wala yu kawe nga xam ne amoo moroom ci penkook soow sa ñaawe siiw na ci penkook soow fu ne sëñ bi yow Ahmadou Bamba yow sama xettal yow sama warukaay yow mi nga xam ne ku siiwee doon waa ju baax rek yaa nekk ci kawam sëñ bi déggal njàmbatal taalib bi nga xam ne fu sore la bàyyi ko waaye li ko tax a jege si mooy sa jikko rafet yi ak sa xéewal yu baawaan yax ko dana jàmbat ilayka jëm ci yow umuuran ay mbir kat darat yow naxal na ne zamanan jamono wal juudu te tab ga yantiquhu dana ko waxloo wallaamu te yedd ga yuskituhu dana ko noppiloo ne ko taalibe bii day dafa wéet la jàmbat ay mbir yoo xam ne naqal na jamonoom seet gi mu seet sa tabe mu àgg fu ne moo ko taxa sa wax waaye bu ko mën woowe li mu xam ci boppam du ñëw sax di jéem a wax dara foofu banaa iri yi nekk na ci aw mbootam naaroon sawara yu ajjijuhaa wa dana ko jërjëraloo dana ko waagal suudul xutoo bi woo ñooli mbamb yi wala ma baaxa ba nga xamee ne xat na xiilatuhoo pexeem wala waa jitti amut min karamin jenn aji tedd min mi ndawaan la yestaj yu ko dana làqu bi ci moom siwaaka ndawaan jaaka dikkal na la warax ba taxoo te xeeñam teefam fii jadd waaka nekk na ci sag may dana ko ñu dee ci xolam mu ne waaye sawara moo ci nekk di jërjëy mbir jamono tiis di ko xam rek sawara waa gën a jërjëy mu dem ba amoo benn pexe amoo kenn ku mu yaakaar ku mën a làqu kenn ku mu ñëw moo tax ne mu ñëw ci yow te am yaakaar ci ne aajam dana faj ci sa tane yaa cheikh ñoo sëriñ bi encore yaa na nga xettali li ma ñàkk nga xam ne jaawat réew na xat yi ëttufoo naweteefam wala te dox uti boo ko bawoo maxam ñiraani mu ànd ak sawara ya tabb xëttufoo ni koy gëlamal sëriñ bi ab taw daaw yi boo xam ne ay naweteefam dafa réew soo ko daawoo doo tuut sawara di ko lakk di ko gëlamal du xool ba xam fa muy jëm yaa cheikh yaa sëriñ bi laa tatrukan boo bawoo mar an ascam yuhibbu ko comme doo sopp fii sukkandiku xutoo bi ci waa ñaar mbamb ya fa tuf nii da koy jeexal bàyyi yëtuhoo musibaam ma sëñ bi nit kii ku la sopp la nag ma ko tax di wax boo ko bàyyi nag ci mbir jamono tiis yi soo ko bàyyi mbir jamono tiis yi natt yi jeexal ko tàkk wa kayfa tatruku naka waa baawaa fil baawaa ca musiba ma muhibbaka sa aji sopp yaa cheikh yaa sama sëriñ wa mahabbatuhu te ak cofeeram fii ka nekk na ci yow wa it axtaa ak doonte juumoon na ne ku ko xam ne dalaa sopp noo koy baawaa ci musiba rek muy natiitlu ak lu mu mën a bari bari ay rek moom ku la sopp la kon nag moo ko baawaa ci musiba anta te bahran géej nga li ma ñoo koo xam ne yow doo doon yaakaar na baaka sa tab wa ma woo fokk te du doon raaji ji ko sa aj yaakaar te tiibi di ko dikkal raxaabatu xoo xemam teexam géej nga goo xam ne ku ñëw ci yow yaakaar la da ngay sotti ko ci kawam ku la yaakaar rek fu mu toll di am lu mu bëgg ataaka dikkal la yaa cheikh yosorom bi mar un ascam ak nit taalama laibat ko yàggaana bu faa bi ci moom alxutoo bi mbandoo mi mbir jamono tiis yi waxaabat te fàddu min hu ci moom farxatuhu mbégteem fal tashfihi kon yàlla na ko saafara wa bihi te fekk mu nekk ci moom ramakun desiti dund yaa sayidi ya sama sang fa in taraaxayta boo waxee rek xadd xaanat teew maniyatuhu deexam nga nit ki ñëw ci yow tey rek ma ko tax di wax day koo xam ne mbiru jamono tiis yi dañ koy foo fu naa ñu jële ko fa ba amut lu sax dara ci mbégte ba amut lu sax mbégte sëñ bi daa koy saafara léegi léegi danaa wéy ndax xëy na ndax xëy na mu ngi defi dara ci dund boo waxee rek mu dee kon dara di gaaw faj ko yaa ngi ne nga xam ne xoo moom alfadlu moo ngawal matwal xayri tey saxukaay yiw ajmax yaa mbooleem wa macdinal juudi tey mbooleem tabe bu ko defee waxtu nga ne wa taqwa te ragal yàlla xasiinatuhu mooy armuwaalam mawaa xufaati di tàppukaay way xaaraan ni malaa bool mër mër yàlla te yoorukaay yoo wàkk ñu ma an mboole seen xawsaat masaakiin yi tey xettali miskiin yi nga xam ne laa taf naa du jeex xatti yatuxoo moom nga wawaa jawaabu yow tab bi alkarim bi aji tedd al mustajaabu ko rek wàqoo bi ci moom fil naa ibaati ci xeexee jamono nga xam ne falaa taxsha doogal dara raiyatuxoo njabootam ir af yàlla nga ñaante bi xabdin ci ab jaam dalilin bi aji torox fii ka dag nekk na ci yow nasratuxoo ndimalam ma dalla toroxut man koo xam ne nasratuhu ndimalam bi xabibillahi nekk na ci soppub yàlla ba te ni sëriñ bi yaa nga xam ne sa lépp nga noon la lu baax fi yow wataa yaa ko ëmb ci biir biti yaa amee tab tab ci yow doole ragal yàlla mooy sa armuwaay mooy sa dencukaay nga fatukaay way xaaraan ñi di yeewukaay yoo ñàkk ñi di xetlikatub miskiin yi say may di jeex yow ku tedd ku tabe ki nga xamee ni ku bëgg a làqu ci yow làqu ndax daawat xew-xew tiis yi xam ne sa njaboot duñ tiit duñ jàq duñ ragal yàlla nga ñëwante jaam bi nga xam ne bu torox torox la waaye nag yaakaar na sa ndimbal te yow dangay sotti bi yàlla boo xam ne ku ñëw wéeru ci yow bëgg ndimbal rek tàggoog toroxte wa man tawassala ku jotliku bil mahbub ci kañu sopp mu bu tax yow mbir mi ñuy aji sàkku noonoo mën a am mébét ya kay fa yaa tatihi naka la koy dana dikkale mu neetuhu mébétam ma nee ko fekk soppib yàlla yonente bi nga jotliku ci darajaam bëgg am say bëgg-bëgg na ngay def ba doo am say bëgg-bëgg am ko rek ngay def yaa akramal kurama yaa gën jaa tedd yaa tedd ña xàqan ci dëgg-dëgg wa ajoodahum te gën jaa tedd seen nasaran ci ndimbal xasiisan lu bu aji tedd liman ñaa ka nga xam ne jaalab màgg na xatiyatu foo ñaawteefam wala boo defee nasaran foo gisi xa duñ asaf nasaran maa ngi sàkku ndimbal xasiisan lu aji tedd liman ñaa koo xam ne jaalab réewal màgg na xatiyatu foo ñaawteefam ataa dikk na muqirran mbir muy aji saxal ba xus ni van bi ci réew bàkkaar ba mortawfa mbir muy aji tudd ko xasaa tumxaa xaymaloo bi dee fi far bi xafii ko ci sa njëggal xan xuwees ko zallatuhu rëcc rëccam dafa def nag tam xoo waa daa mel ne tam xoo moom day jàggati te zallatu bee mënta ñàkk rafaal ngir waay dafa mel ne kon xasaa bi xafiika tumxaa def na far zawatu nek na imam dal ko yobu jangal ni ma xam hasa bi nurika khayna ci sa leer tusra def na ñu an wayus ko zayna ko ni banam nga ko na mom bu da xante sëriñ bi mo mën na doon ke zo mata ho nga xamne kon do doon hasa bi nurika khayna ci sa leer tusra def na ñu an wayus ko zo mata ho banam nga xasa tanaxa xaymalee bu soree bi juudin ci ak tag min ko ci yow faaqatuhu ñàkkam nga te ko dama ñëw di wax sama bàkkaar bu rëy gàtt ne boo ma sàkku ñëw jéggal rek ma tàggoo bàkkaar xëyaat danaa fees ak lëndam waaye sa leer gi mën na maa tàggal ak lëndam danaa taxaw ko ñàkk waaye xëy na sag tag man na ma daldi tagalo ko ñak ante al wali ya wali bi an nasiya nga xamne halat kayna